comme sa laajte bi nga laajte man hope pour xale bi daf ko war a jëlee ci parents am su fekkee ne ameewul ko si parents yi rek comme ni ma waxe woon ca njëlbeen ci biti la koo jëlee te ñooñu liñ ko góomloo rek dafaa jàpp ne loolu fi nekk waaw du ma mun a jël blame bi di wax xale yi xale yi parents yi la even Gambia bi ñu jugee Gambia suñ yaayee suñ papa yi dañu dee force pour ñu génn uti alal nga gis yaay bu jur ñaari doomam ci biiram bi kii am kii amul ki am mooy gor ki amul kooku du gor parce que lan dem nga comme ni nga ko fi waxee a very short time nga ñëw indi moto yóbbu sa yaay maaka defaral ko kër gi ñu ne kii mooy ku tekki keneen ki nag naka laa def foog mu dem uti kon jaxase bi yal na ma yàlla baalal si kàddu yi si ñun waajur yi la nañ wax dëgg bi sëriñ bi ñun waajur yi ñun ñoo jël xale yi xaajale leen ba léegi-léegi xale yi dañoo yëg seen boppa ba jàppane su ma amut kenn du ma def man may nit nii xam nga def nañ la hopeless already yow yow doo tekki dara danga dégga waajur di ko wax doomam yi wala sa morom yi dem nañ am lii moo tax xale yi dem di dugg si gaal gi pour mun a pour am kon waajur yi dañ war a wéy ci seen jikko yi waxtaan ak xale yi jox leen hope dalal seen xel wan leen ne leen ne àdduna bi doylu mooy li nga xamee ni nii moom moo la fi mun a dimbale soo doyloo man di ma dee wax suma xale bul keneen am doylul si yow li nga am keneen lim am loolu la am waaye yow li nga am na nga doyloo loolu noonu nag su fekkee ne yow xale bi fi mu nekk dundut loolu am na problème dafa war a dunda loolu dafa war a dunda ne dama war a doylu dama war a xam fi maa em dama war a xam ni maa waxee te kenn du ko def ci xale bi ku yow périm bi yaa fa def mo tax yàlla jël responsabilité tek ko sa bopa ne la yow mal xiyaam dinañ la laaj yow nan nga yare won sa njaboot fo nga respond loolu non bi si des yëfi ray nit ñi yo jël fetel di reyaate waxna ko sun mitit biñ amone amoon mit doo replacé ma amna dafa am lo xam amna mu naa mun ko waxat yow ci suy sa pour mu gëna leer ci ñoo bi suy ci ñun diine lim ñu xamal moy bo rayé ben nit da nga fa mel ni bi nga ray kon soo dundalee benn ni dafa mel ni néesoon bi yëpp nga dundal ma ñëw ak suma xelaat ma ne yow bu fekkee xale bi rey na nit bu ngeen only twelve thirteen kooku jël fetel rey nit kooku àddunaam dafa jos tàmbali wala tàmbaliwul sax kooku béebi la ba léegi nga jël kooku noonu fan nga ko yóbbu si umdum xem nga bàyyi ko foofu noonu fara waaye <coughs> mu génn fifteen twenty years nekka mag wane ne waa man mus naa rey nit kooku ndax dina defar dara si sama du fi mun a def dara waaye bu fekkoon ne xale dafa rey nit ngeen jël ko dugal ko ci biir présine bi ne ko ñaari nit ak ñaari mbir a ngi nii pour nga velya li nga velya mooy nga toog si président bi for the rest of your life wala nga génn nga dem study mooy li xeet yëpp am nga ko ida nga nekka loya ida nga nekka docteur su ko defee nga mun a defaraat lu baax si sam xelet bi parce que rey nga fi nit yaxa nga kon obviously su fekkee ne dem nga study nga su boobaa yow dina mën a liggéeyaat nga njëriñ tamit nit ñi dan nga jël xale bi bàyyi ko noonu su fekkee Amérique dañ laa jël bàyyi la bàyyi la jël am na state yoo xam ne dañ laa bàyyi jël ba nga màgget foofu noonu wala ba nga dee Sweden nag dañ laa dugal benn five six seven eight years maximum xëy na loolooy life sentence ñu bàyyiwaat la ci biti nga ñëwaat mel neneen waaw waaye nag su fekkee ne dañ la dugal ba pare train la nga nekka dara kon su boobaa yow boo génn see waat di nga mën a dimbale waat nit ñi indi waat leen ci yoon su boobaa loolu dafaa nekk loo xam ne nii lu ñoo dimbale la ñu waaye yaaxu yaaxu bi yëpp sëriñ bi background bi man mu Mohamed Lay man maa ne yaaxu yaaxu bi yëpp ci expérience la man maa wax loolu waaye nag na ngeen dégg fi nga xam ne fa laay waxee li tax ma ne si parents yi la parents yi ñoo war a indi xale yi yar leen teg leen si yoon li waxtaan ak ñoom lépp lu ñoo war a xam ci mbéere bi nañ ko xam ci biir kër yi ba pare su boobaa suñ ko xamee si mbéere bi du leen jaaxal waaye su fekkee xamul dara ci biir kër yi luñ génn xam ko ci mbéere bi dañoo gëm ne loolu li nga xam ne mooy li waaye ñu ngi jégalu ci kàddu yi nga xam ne ekkati nañ ko pour ma tëj lu ci yàqu rek ngeen xam ne suñu xam-xam bu matadi la di sigi ndigaale tamit waajur yi nga xam ne seen doom yi génn nañ fi àdduna waxuñ fii pour ŋàññi ken waxuñ fii pour xas kenn waaye ñu ngi wax rek pour xelalante te xelaat bi tamit ñun ku ci nekk na nga jël sa xel nga jëfoo ko su ko defee di nga mun a dégg fi nga xamee ne fa la ñoo waxee te waxi ndimbal la Gambian nag yàlla daf leen nattoo be nga xam ne su wax ñëwee dañoo jël li ci ñaaw yépp am fuñ ko moomal am kuñ ko dëkkal ñun wax ji moomale wuñ ko kenn dëkkaluñ ko fen dañ ko dëkkal ci suñ biir lépp lu ci ñaaw nañ ko jël tegaat ko ci suñ boppa waaye ñun gënuñ fi gënuñ fee baax suñ doom yi gënuñ fi gënuñ fee baax ba tax ñun ñuy dañoo waxal nit ñi kon nañ bàyyi wante xel bu baax a baax te suñ jàppoowul ànda nekk benn duñ am jàmm sëriñ bi loolu dinaa ko dee wax di ko waxaat foog ñu jàppoo ànda nekk benn su ko defee ñu dimbalante su ma gisee sa doom ma téye ko comme suma doom soo gisee suma doom nga téye ko comme sa doom waaye tey di nga dajee xale sëriñ bi du la nuyu lan la ndeyam a bàyyam wax ju bon ji ñoo wax ci keneen moo tax man du ma war loolu warumaa toog a suma doom sax ak suma jabar di yaaxal dari si bi su ko defee bu gisee encore si bi sax bu ko nuyoo daf koo jax kanam loolu si suñ biir la nekk ñun gis nañ loolu kon nañ bàyyi xel loolu bu baax a baax gën a ànd a jàppante yal na yàlla suturañu ba jëf ju ñaaw yi di fi am yëpp yàlla jëlee ko fi barkeel njaboot yi taxawuñu bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wa loolu li nga xam ne moom laa amoon ci kàddu yi mm. kon ñu ngi leen di jaajëfal jërë ngeen jëf. amiin amiin. Um, Så jag, det sista jag ville säga var att eh, jag kommer eh, påbörja en eh, insamling till ett projekt som eh, eh, vi kommer vilja göra i Gambia, inshallah. Eh, det är ett projekt där vi kommer att gräva en borehole. Det är en sån där vatten, det är en vattentank, det är en pump till en vattentank som kommer um, ha massa vatten som folk kommer kunna um, som folk kommer kunna använda sig utav i Gambia. Uh, vi kommer göra det här projektet i uh, Siri James namn, i Ndela Jacks namn, i Alfosene Jobates namn, i Suleiman Jalos namn och i Widu Kols namn. Dessa fem gambier har varit uh, våra gambiska ungdomar som har blivit, som har blivit tagna från det här livet. Eh, på väldigt hemska sätt, väldigt, väldigt eh, tragiska sätt utav det här eh, våldet, vapenvåldet som har pågått här i Sverige och som pågår. Eh, så att det här projektet kommer då att eh, börja näst, i, i, i april, eh, inshallah. Förhoppningsvis är vi då i Gambia. Eh, och tills dess så kommer vi göra insamlingar från, från alla håll och kanter. Alla som skulle vilja bidra till det här är jättevälkomna. Jag kommer komma ut med, med mer information om det här. Eh, så ni får eh, hålla ögonen öppna, hålla öronen öppna. Ifall ni skulle höra någonting om det här projektet så, så är det eh, Borehole for our, for our departed Gambian youths eh, kommer det heta, inshallah. Så att, eh, det är ett, en välgörenhetsprojekt som vi kommer att göra i deras namn också. Eh, inshallah. Då får jag tacka er. Jag tackar er stort eh, för ert bidrag idag, för att ni har kommit hit. Eh, har du Momono någonting som du vill säga och avsluta med? Nej, absolut inte alltså. Mm. Det är ju <laughs> bara att tacka mm. er för initiativet, initiativet alltså, och taget. Alltså. Det här är ju något jätteviktigt. Mm. Jag vet inte om det finns något viktigare alltså, som vi ska kunna göra som en, eh, en gemenskap mm. alltså, i Gambias, gambierna i, i Sverige. Mm. Men framförallt önskar jag också då att eh, även våra föreningar engagerar så att det här samtalet blir bara början till något vi ska kunna göra konkret mm. som du här nu. Det finns mycket annat vi ska kunna göra. Men uh, vi måste ju själva fråga oss då, vad kan vi göra för våra ungdomar? Och som Imam sa nu då, det är vi föräldrar som bär det största ansvaret. Även om samhället också då finns med i viss mån. Uh, men för oss alltså ska det, det hela börja med att ha ärliga samtal oss emellan så att vi ska kunna komma fram till hur vi ska adressera de här sakerna, hur vi ska ta itu med problemen. Hur når vi till våra barn, alltså våra ungdomar överhuvudtaget? Alltså, det står någonstans, tror jag, i tunnelbanestationen i Tensta, där det står alla barn är allas barn. Mm. Ska vi gambier alltså se då allas barn som all, alla våra, mm. då måste vi själva då som föräldrar komma in. Eh, vi måste göra eh, eh något, eh, något alltså själva för att kunna tillsammans eh, försöka nå dessa ungdomar bara de som, även de, de, inte bara de som är mycket yngre, men även de som redan nu i ett ålder alltså, där de har hamnat i gängen. Alltså. Vad ska vi göra tillsammans alltså, för att rädda dem från kriminaliteten, när onda cirkeln? Det tror jag det är en utmaning för oss alla här i Sverige. Det är en utmaning. Tack. Tack så mycket. Tack för att ni kom. tack. tack. tack.